رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون mbokk yi jàkkaarloog ci seen chaîne Safina TV rawatina ci seen émission religion et société ñu ngi leen di nuyu nuyoo bi gën a sell gën a tedd te gën a matale te mooy asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. di dellu siwaat ak yéen ci kàttanu yàlla ak mbaaxam ci seen jotaay bii di religion et société diine ak jamono tey nag ñu fas yéene waxtaane thème bu am solo ci wàllu dundin muy loo xam ne ñett yoo xam ne doom aadama waru ko mën a ñàkk rawatina ki nga xam ne nag bëgg naa avancer bëgg naa réussir ci dundam danañ ko faram-fàcce allah ci kàttanu yàlla ak mbaaxam di gërëm bu baax mbolam ñi nga xamne ñi ngi suivre émission bi di suivre Safina TV di len euh, di ko safo ñi ngi len di gërëm bu baax di len sant di nuyu di ziar bu baax it borom kër gi euh, muy Tierno Yoro di ko wàcce wàcce wayam di nuyu suñu directrice soxna ñu euh ñatt yi nga xamne doom adama bu bëggee tekki bu bëggee am lu baax ci àdduna munta ñàkk mu ngànnaayoo ko ci dundam ñett yooyu lañuy ñuy waxtaane bokk na ci li ñuy wax xurriyatul qalb muy gore xol xol bu gore buñ ko waxee nag lañ namu mooy imaan gëm yàlla gëm yàlla goo xam ne dara conditionné wu ko ndax ki nga xam ne dafa judd fekk ay waajuram gëm yàlla nekk ay jullit mu ne samay waajur ay jullit lañ man tamit jullit laa kooku gëm na yàlla donte sax gëmam gi wér na waaye ñàkk gim ñàkk gim maanaam yakunu asiman bi tarkil istidlaal ñàkk gi nga xam ne ñàkk na koo gëstu ba xam lan mooy gëm yàlla ak lan moo tax ñuy gëm yàlla ba gëmam tegu foofu kooku su boobaa boroom xam-xam yi nee nañ loolu da ci am bàkkaar noonu la kon gore xol mooy nga gëm yàlla gëm yàlla goo xam ne teguwul ci aada teguwul ci euh, conditionnement gëm yàlla goo xam ne danga xam gëstu ba xam kan mooy yàlla nga gëm ko xam li nga gëm mooy lan xam fi ngay teg sa tànk mooy fan gëm yàlla goo xam ne dafa tegu ci ambition ndax doomu aadama dundam lépp dafa war a tegu ci ambition lépp loo xam ne mi ngi koy def te teguwul ci ambition teguwul ci mu am conscience ci li nga xam ne moom la nekk lan la la su boobaa amul benn sens muy la mat a bàyyi xel bu fekkee nag sa gëm yàlla fex fexe nga ba am ci ngor ba gore ci boo fexee ba am gore xol ci ngay mën a jaamu yàlla jaamu yàlla goo xam ne danga koy def mu ànd ak personnalité ndax benn boroom xam-xam bu mag daan na wax naan sëñ Cheikh Tidiane si yàlla na ko yàlla yéeram daan na wax naan yàlla personne du ko jaamu mais personnalité moo koy jaamu boo amul personalité mu munoo jaamu yàlla sa jaamu yàlla gi fii ak mi ngi tegu ci bëgg-bëggu nit wala bëgg-bëggu bakkan wala yaa ngi cee sóor keneen wala leneen lu dul yàlla su boobaa teguwul ci personalité waaw bu mu tegee ci personnalité mooy foo xam ne yow gore nga ci li ngay def libre nga ci li ngay def yaa moom sa bopp nga xam ne xam nga ne sa digg yàlla kenn doxu ci loolu mooy gorek xol <clears throat> muy lu mat a bàyyi xel muy firndeel la xadis bi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ko muy man arafa nafsahu arafa rabbahu ku xam boppam rek xam boroomam ku xam boppam xam boroomam su boba nak personnalité bi ñuy wax fofu nga koy mëna amé ñaarël bi ci yi nga xamné munta ñak ci doomu aadama bi nga xamné dafa bëgg jëm kanam bëgg avancer moy li ñuy tuddé hurriyatul aqli wala hurriyatul fikr moy gore ci xel wala gore ci xalaat gore ci xel wala gore ci xalaat moy lépp lu nekk rek nga jëfëndiko ca sa xel euh wax bu nekk wax boo dégg bu nekk nga xam loo tey loo cay jël ak loo cay bàyyi mbir mooy dugg mu nekk nga xam la la ca mën a jëriñ nga jël ko la la ca mënul jëriñ nga bàyyi ko ndiki noonu wax boo dégg bu nekk nga xool lan moo la ca mën a jëriñ nga jël ko la la ca mënul jëriñ nga bàyyi ko ak wax ba fu mu mën a bàyyi koo nag bu fekkee nag gore xel googu amul moom dangay nekk koo xam ne dañ lay manipuler rek di la jëmale fu leen neex rawatina jamono bi nga xam ne manipulateurs yi ñoo ëpp euh, lépp loo bëgg lu nekk ngir avancé mën nañ laa démotiver ba fa nga tegoon sa tànk nga teggi ko te jaare ko ci ay wax loolu nag boo amee gore xel wala gore xalaat nga xam ne wax boo dégg bu nekk danga ko mën a analyser xam la la cay jëriñ nga jël ko la la ci jëriñul nga bàyyi ko ak wax ba fu mën di jógee nga nga nga doxalee ca noonu ndax doomu aadama yëpp yàlla daf leen bind may leen xel différence bi li def différence yi diggante doomu aadama ak moroom ma rek mooy ki nga xam ne day jëfandikoo xelam ak ki nga xam ne du jëfandikoo xelam ki nga xam ne du jëfandikoo xelam nag mook bàyyi ma yi nga xam ne ñoom la yàlla bind te joxu leen xel ñoo yem hakaza kon noonu rek lay demee kon nag boo jëfandikoo sa xel ci ngay muccee ci ñi nga xam ne euh, dañ lay démotiver nga xam ne yoon wi nga aw ngir réussir ngir euh, def jeexital ci sa dund jeexital boo xam ne du yow sax kese lay jëriñ waaye bés boo fi jógee sax dana jëriñ ñeneen ñeneen danañ mën a inspiré wu ci yow niki noonu tamit ñi nga xam ne ay manipulateur lañ dañuy foye sa xel yooyu tamit euh, ci gorek xa xel moo lay mën a musal ci ñoom niki ndax doomu aadama ñun li ñu sonal africain la ñuy tey avancé bokk na ci aada yi mooy tradition yi nga xam ne moom lañ gëm waaw lépp loo bëgg lu dugg lu nekk am na ñuy taxaw fee naan la xale nga xale du am lii bon sa ambition moo lay sonal xalaat yu bari bëgg loo xam ne du sa âge fekk na sax boo demee kay wax loolu moom euh, intérêt personnel am kese moo tax mu koy wax ndax yaakaar na ne yow bés boo amee li ngay wut moom dootu la yilif kilifteef gu bëri moo ñu sonal bëgg kilifteef xubbu riyaasa loolu moo ñu bokk na ci li nga xam ne moo ñuy gàllankoor foog nañ ne ndaw loo xam ne mi ngi góor góorlu rek bés bu amee la mbëgg ñoom dootuñ ko yilif te au contraire bés bu amee la bëgg yow sa ndam la yow mi nga xam ne yaa ko yilif bu fekkee jàppale nga ko ci jéego yi muy teg jëm kanam bés bu amee la bëgg yow la ci njëkk a gërëm avant mu ciy gërëm kenn yow la njëkk a delloo njukkal waaye nga ne rek. yow dal yaangi ngi toppatoo sa aduna yaangi defal say mbir waye ñi ci dess ñep bu kenn jël yoonu bopam ñep nañ top ci sa ginnaw rek est ce yow yoon wi nga jël da na len arranger ngir ñu mëna am li ñu bëgg ci seen dund wala déet kon koku lu mata bayyi xel la ñu nak nit bu mu am kilifa kilifa mom mënul ñak ci dund ndax ku amul kilifa mom seytaane di sa kilifa wala jinne waye kilifa ci bopam kilifa gu mat kilifa kim gëna soxla mu diko top moy ki xam lim bëgg kilifa gi mu gëna fokk ci njabootam moy njabootam gi gëna am ambition gi gëna xam limu bëgg bu fekkee kilifa gu mat kilifa la kilifa gu matul kilifa nag mooy gàllankoor di tey ay ambition njabootam ngir ñu bañ a avancer ngir ñu bañ a dem kon loolu lu mat a bàyyi xel la ndax yàlla moo bind wërsëg bind wërsëgu doomu aadama ba mu nekkee ca biiru yaayam ku nekk boo tëddoon di nelaw sa lal sax sa wërsëg dana la fa fekk waaye tamit sabab lu dafa munul ñàkk wërsëgit yàlla mën na koo jaarale fu nekk ci ku nekk waaye kenn warul jàpp ne wërsëgu nit ñëpp ci sa loxo rek la war a jaar lu jaarul sa loxo rek warul tàbbi ci loxo doomu aadama yi kooku la ñuy wax anaani ci arab mooy égoïsme waaw koo xam ne dafa égoïste moom boppam rek lépp rek ci boppam la war a jaar lu jaarul ci moom rek nit waru koo am kooku baaxul kooku erreur bu mag la bu doomu aadama di def ci dundam kon dal xoriyatul aql wala xoriyatul fikr moy gore xel wala gore xalaat moo lay permettre nga mom sa bop ci ci say xalaat ba fa nga bëgg egg nga egg fa te su boba tamit la lay may nak nga gëna a moy nga am nga wolu sa bop nga nek nga am confiance en soi kooku lu mata baye xel la bin nafs kon ñaar yi mo nek non bi ci ñëk kon moy gore xol moy sa gëm yàlla nga xam fan la tegu mu bañ ko nga bañ koo teg rekk ci aada euh, ba ca topp kon di ñaareel ba mooy gore xel wala gore xalaat ñetteel bi mooy gorek nammeel gorek nammeel mooy nga gore ci say décision ñemee jël ay décision waaw kooku bokk na ci lii jëmale doomu aadama kanam buñ na ñemee jël décision nag ragal du fa nekk ndax boo ragalee lépp looy looy dugg lu nekk Dang euh, dang dang ci xalaat dang ci xalaat lu ne ba do ko def ku ragal du dem ba ca top moy liñu ñuy wax taraddut du fa nek moy hésitation ko xamne ne lu muy def rek ma ngay hésiter diw dana ci mer diw dana ci contane bu mako defé lan moo ci wara fek wala yu mel non koku kon il faut mu daq ngir goreeg décision mën am am euh, kon yoyu lu mata baye xel nit ki bu fekkee kon gore na ci xolam gore ci xalaatam lépp lu mu rek dana ñemee jël euh, euh, dana ñemee jël euh, risque ngir def ko ndax dund du dara lu dul ay risque ku dul jël risque doo dem fenn kon kooku lu mat a bàyyi xel la ñemee jël décision ndax yombul nag yombul décider bëgg a def dara daal di koy def kooku yombul moo tax sama benn kilifa ci wàllu liggéey daan na ma wax ci wàll woowu ngir ñeme ak euh, am ambition ngir jëm ci kanam naan ma del da ngay ñemee rêve ñemeel rêve del rêve ba mel ni yaa ngi nelaw ba dootoo yeewooti waaw di imaginer li nga war a am li nga bëgg ci àdduna del rêve ku la gën a avancé ci àdduna mooy ka la dàq rêve ka gën a am ambition kooku lu mat a bàyyi xel la te loolu nag euh, lislaam moo ñu ko njëkk a jàngal Yun bi salaa salaam mu ne tafaalu bil xayri tajidu na ngeen gat nga lu baax bu ngeen gat nga lu da ngeen ko am ku bëgg lu baax ku nek ta def lam ca wara def am objectif daal jaar fa nga wara jaar da nga atteindre sa objectif inshallah tafaalu bil xayri tajidu daan na ma wax aussi sama kilifa gog ci walu liggéey daan na ma wax nan dund bi ñaar rek fi muy acteur ak téléspectateur ñi nga xam nangu nañu agir nangoo dox ngir atteindre seen objectif ngir li leen yàlla bindee ci àdduna ñu amal ko di góor góorlu ngir tekki ngir réussir ñooñu la ñuy tuddee ay acteurs ñi nga xam ne nag dañoo toog croiser les bras toog ñoom di apprécier di seetaan rek ñun la ñuy tuddee ay téléspectateurs ñi nga xam ne nanguwuñoo def dara mu ne ma nag na nga bokk na nga jéem a bokk ci acteurs yi mooy boo mais bul bokk ci téléspectateurs yi bul baisser mukk les kon boo bëggee avancer dangay nekk acteur di jéem a agir nangoo jël ay risques nangu ñu mere la ci say décision kasa kon noonu la war a demee parce que l'islam loolu la ñu jàngal te bàyyi nag ci ginnaaw waxu ñi nga xam ne ay démotivateur lañ euh, benn woykatu arab dafa waxoon ci wàll googu mooy ci wàllu ambition mu ne walaw ma asaa li adna maichatin كفاني ولم أطلب قليل من المال ولكن ولكنما أسعى لمجد مؤسل وقد يدرك المجد المؤسل أمثالي إمرو القيس موكو ويون أما أراب دنان جل مثال كي سين ويك سيني ويكات أك سيني خالات كت دون تسح بوبا جاهلية لا خامن بوبا الإسلام نيوغل وبالإسلام نيوغل أسي دفا سيت لا تجنى أم جرين جنشا باح تسيني وخ mu di ko jëriñoo loolu day bokk ci liñ doon wax léegi xurriyatul aqli xurriyatul fikr lépp loo xam ne baax na rek may nañ jullit bi mu jël ko ngir jëfandikoo ko moo tax woykat bi daf ne bu fokk bu fekkoon li tax may sonn di jëf di liggéey mooy am lu ma lekk am lu ma naan chaque jour ma am lu ma dundee rek su boobaa tuuti ci alal rek doy na ma waaye loolu taxumaa jóg li ma tax a jóg mooy am lu kenn amul ndax lu kenn amul am nañu ko fi am te comme man ay nit lañ comme man maanaam ay nit comme man rek ñoo fi am lu ñëpp di coow kon nag man it bëgg naa am lu ñëpp di coow majjun mu asal muy lu mat a bàyyi xel di wax bu kawe. moo tax Omar ibnu Abdul Aziz xam nga léeg-léeg nga dégg ku naan mébét yu bari baaxul day lii day laa day wowal xol waaye mébét yu bari am na fu mu baaxee mébét yu bari bu fekkee danga koo teg ci loo xam ne danga ki sàmmee sa ngor sàmm ci sa diine moom nga bëgg ba kenn du la yàpp moom sa bopp ba kenn du la yàpp ci sa diine ndax boo ma moomul sa bopp rek sa diine sax dañ koy manipuler doo ko def nañ ko bëggee waaye bu fekkee yow li la tax a jóg mooy moom sa bopp ci wàllu koom-koom su boobaa moom sa bopp ci wàllu koom-koom googu yéene ba nga ci am ngir am ko bés boo ko amee yàlla dana la jàppale ba nga mën a sàmm sa diine sàmm sa ngor bu fekkee loolu moo la tax a jóg aayul liñ liñ tere kay mooy bu fekkee yow àdduna rek moo la tax a jóg te incha allah danañ ñëw ci fin waxtaan bi ci lan moo lay jàppale ba say ambition àdduna nga mën koo réussir euh, euh, sans nga euh, sans bàyyi sa sa diine. moo tax Omar ibn Abdul Aziz ci wàllu ambition dañ ko ciy jël misaal léeg-léeg ñu wax ne Omar ibn Abdul Aziz zun nafsi tawaaqa borom maanaam borom ambition bu mag ba borom bakkan bu ambitieux bi. muy Omar ibn Abdul Aziz daf doon wax ne moom dafa am bakkan bu ambitieux moom dafa ambitieux ba nga xam ne lu mu bëgg rek bu ko amee bëgg na lu gën a kawe mu ne dafa bëggoon a nekk amir gouverneur yàlla def ko ko nee na mu bëgg gis benn jigéen bu baax koo xam ne ku ñëpp naw ci jikkoom lañ mu am ambition pour kii nekk soxnaam mu nekk soxnaam te mooy doomu bàyyi taxam ba Fatima nee na ma bëgg nekk amirul muminin yàlla dimbale ma ba ma nekk amirul muminin nee na léegi nag li nekk sama ambition mooy dugg aljanna te bëgg naa bokk ca waa aljanna noonu la nit day am ambition loo bëgg lu nekk xoolal lu gën a kawe nga bëgg loolu waaye toog rek ne du ma xalaat du ma bëgg wala bokk ñu ne la yow waroo am ambition rek nga ne waa waruma am ambition bàyyil ma topp seen ginnaaw di toppe rek su boobaa danga nga dee te kenn du la tudd kenn du la kenn du la fàttaliku kon loolu ñu bàyyi ci xel bu baax a baax. moo tax yonent bi sallallahu doon wax ne inna allaha yuhibbu maaliya al umuuri wa yakrahu safsaafaha yàlla dafa bëgg mbir yu kawe yi waaye bañ na mbir yu suufe yi kon képp koo xam ne toujours ca la ngay yëngu mooy mbir yu kawe lu la jëmale kanam lu jëmale kanam lu jëmale kanam mboolem koo xam ne yéene na la jàmm aussi mooy sa euh, mooy sa mooy sa yitte kooku su boobaa bokk na ci ñi nga xam ne yàlla bëgg na leen ndax yàlla lu kawe la bëgg waaye ki nga xam ne jéemul dara day toog rek toppe rek mooy métier kooku su boobaa mooy ñi nga xam ne dañoo suufe ngir nag nga am euh, ñetti gore yooyu mu sax ci yow nga xam ne sa lépp da cay feeñ euh, la la ciy dimbale nag mooy nga am nga fexe am al itisaanu ruux waaw al itisaanu yi yaakaar naa moom la ñuy wax équilibre d'esprit équilibre d'esprit muy lu jafe nag ndax danga ne gis nit mu am ci àdduna lépp am na am na alal wér yaramam macha allah lépp lu mu bëgg a lijjanti mu yomb waaye amul ittisaanu ruuxi bu toogee du tranquille amul jàmm xëy na am na loo xam ne daal mi ngi yëngu ci biiram loo xam ne dalul xelam bëri na koo toog di ko ñee yaakaar ne am na lépp waaye bu la jàmbatee ay problème yi muy jàkka jànkonteel jànkonteel ak ci damiram rek su boobaa dootoo ko ñeeyati dara ngir ñàkk jaamu gu muy ñàkk jaamu al itizaanu ruuxi nag mooy alaqatuka ma allah mooy relation bi ngay am ak sa borom tabaraka wa taala ndax doomu aadama lépp lu mën a song ci àdduna te yàlla bokk ci day mel ni rek kuy làmbatu bu fekkee nag fexe nga ba sa digganteeg sa borom dëgër relation ngeen am relation bu baax su boobaa lépp loo dugg rek yàlla dugg ca ànd ak yow moom la yonent bi salaa salaam doon wax ci xadis ba ibnu abbas naan ko kaay ma dénk la li ma lay dénk mooy nanga bàyyi xel yàlla foo mën di toll yàlla bàyyi la xel na bàyyi xel yàlla foo mën di toll boo ko defee foo tiitee rek gis ko sa sa kanam euh, mu ne ko boo fe boo demee bay ñaan na nga ñaan yàlla boo demee bay sàkku ndimbal na nga ko sàkku ci yàlla xamal ne xeet wi yépp buñ daje woon ngir xañ la loo xam ne yàlla dogaloon na nga am ko ak moyen yuñ mën a utiliser ngir ñàkk loola loolu lu tee danga ko am ndax yàlla bindoon na ko waaye tamit ñëpp buñ daje woon ngir wutal la dimbale la ci benn mbir boo xam ne yàlla dogalul nga am ko mënuñoo fexe ba nga am ko ndax yàlla dogalu ko ndax rufiatil aqlaam wa jafati suxuf xalima yi nga xam ne moom lañ doon bindee dogal yi diw fii la war a jaar lii la war a am fii la war a mujj xalima yooyu ñekk doon bind bind nañ ba pare te daxaaja encre bañ ko doon bindee wow na te kenn mënatu koo soppi hakaza kon loolu lu mat a bàyyi xel la uh, al ittisaanu ruux yi kon mooy ngay bàyyi xel ci lépp ba ngay bàyyi xel yàlla ci lépp su boobaa nag ci ngay amee dal ci ngay amee ak dal lépp looy dugg lu nekk rek bàyyi ci xel yàlla bu neexee nga sant yàlla bu méttee tamit nga delloowaat mbir yi ci yàlla bokk na ci li nga xam ne mooy ittisaanu ruux yi mooy say jaamu yàlla nga di ko wattu di ko def ci heure yi julli juróom julli tamit lam laaj ci teewlu nga def ko la aju ci julli ci ay farata ak ay sunna yépp détail par détail nga xam ko euh, di ko def ci heure am yeneen farata yépp tamit kazalik loolu tamit la la koy yombalal mooy ragal yàlla ndax wa man yattaqillaha yaj'al lahu maxrajan wa yarzuqhu min xaysu laa yaxtasib képp koo xam ne ragal nga yàlla yàlla nee na dana la defal solution ci mboolem loo dugg mboolem loo dugg danga nga am solution yàlla dina la wërsëgal loo xam ne sax foogee woo ko woon beneen bi mooy tawakkul mooy wakiilu wéeru ci yàlla wéeru ci yàlla yàlla nee na wa man yatawakkal ala allahi fa huwa xasbu képp koo xam ne wéeru nga ci yàlla yàlla doy na la soxlaatoo keneen wala leneen wéeru ci yàlla nag mooy def li nga war a def ba te bare ba pare bàyyee sa bopp yàlla waaye bu fekkee sa mbir danga cee génne yàlla doyloo say xelu bopp ak sa xalaatu bopp ak say effortu bopp rek su boobaa mën ngaa am lépp de yàlla dalay seetaan rek mën ngaa am lépp waaye nag bu ca yàlla manqué sa xel dal loolu la ñuy wax nasullaha fa anseehumu anfusahum ñoom dañoo fàtte yàlla yàlla fàttalewu leen seen bopp yàlla boo ko fàttee dalay teg ay problème yoo xam ne da nga fàtte sa bopp mën nga am àdduna li ci biiram fàtte yàlla waaye yàlla teg la ay problème yoo xam ne yow ci sa bopp dangay fàtte sa bopp ba sa ba sa mujj du neex booy suivre actualité yi ci àdduna star yi gën a mag bokk na ci star yi gën a mag seen histoire boo koy boo koy topp ñu ca bëri demoon nañ ba am lépp yaakaar ne am nañ am lañ li ñuy wax saada mooy bonheur mais en réalité amuñ ko woon ndax am na lu leen manqué woon ba ñu ci bëri seen mujj mooy dañuy xaru wala mujj gu ñaaw la ñuy am dem ba dootuñu amati dara ittizaanu ruux yi boobu moo leen manqué kon nit ki war na di posé wu ci question chaque jour sama diggante ak yàlla ndax mu ngi baax euh, lan laa war a def ngir yàlla kontaan te defuma ko te nekkuma ci sama diggante ak doomu aadama yi euh, lan moo cay wàllu yàlla te defuma ko mooy dimbale ñi nga xam ne dañ danga leen a tane wala jëflante bu rafet ba yooyu yëpp ci la bokk euh, li nga mébét ci ay jaamu yàlla dans l'avenir ndax buñ ne objectif rek nit ñi dañuy xalaat ay objectif u àdduna yi lii laa am ngir def ko objectif yi tamit dee ci boole objectif jaamu yàlla ndax am na ndax am nga objectif ngir aji màkk ndax am nga objectif ngir omra ji ndax am nga objectif ngir tabax jàkk wala daara wala jëf yu baax yooyu bés bu la yàlla mayee yooyu yëpp kon doomu aadama war na di ci bàyyi xel moo koy dimbali ba li mu bëgg ci àdduna yëpp mu mën koo am waaye boo desalee gannaaw sa boroom desal la ginnaaw ay jaamu yàlla su boobaa lépp loo am barke du ca nekk ndax jaamu yàlla yi mooy barkeel la ngay am kon sàmba tey loolu lañ tënkoon ngir euh, yégge ko mbokk yi nga xam ne ñooy seetaan seen émission religion et société lépp lu ci jub ci yàlla la lu ci dëng ci kii ko doon waxtaane la ak gàtt xam-xam ak ñàkk fasaaxa di wax ne in uridu illa al islah mastataatu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wassalaamu aleykum wa wa barakatuh